وعن أبي الحسن الشريف صفعلي خليفة الشيخ في سر وإعلان ñuy fas yéene ànd ak yéen mbokk yu tëddi tabi ci suñu fukkeelu dars ak benn ci commentaire bi ñuy jéem ci téere bu mag te tedd bile jawahirul maani wa buluugul amani fi faydi sayidi abil abbaas tijaani radiyallahu taala anhu wa ardaahu wa anna bihi amin dañuy tàmbale rek ci question bu nga xam ne suñu benn mbokk laaj na ko waaju ci dars bi weesu ci njabootu Cheikh Seydi Ahmed Tijani radiallahu an comme dafa dégg ñuy wax mbiru mbiru doom yu jigéen yu سيدي محمد الكبير اك سيدي محمد الحبيب اك سيني تاريخ سين سي اك سيني جابوت موي لاج نك ندخ شيخ تيجاني رضي الله عنه جابوتم غين خم تاي تي اي دومم يو غور لن جوغي ولا بايو في دوم يو غور اي دوم يو جيجين ñoo jur baay ak i yaay ak i maam yi ñi fi ne déedéet Cheikh Tidiane radiallahu anhu bàyyi na fi ñaari doom yu góor boo dégloo duruus yi weesu di nga gis ne yeneen doomam yi ña cay góor ak ña cay jigéen ñoo ko jiitu barzax yu doom yu góor rek la fi bàyyi muy seydi al kabir ak seydi mohammad alsaghir moom la ñuy wax seydi al habib képp koo gis tey muy sët ci cheikh tijani radiallahu anhu xamal ne foofee la jóge rawati na rawatina Seydi al Habib mi nga xamne mom mo fi baye ay doom yu góor ñaareel tay ko gis rek soit mi ngi jare ci Seydi Ahmed Ammar doomi Seydi Mouhamadul Habib doomi Cheikh Tidiane walla mbokkam Seydi Bachir doomi Seydi Habib doomi Cheikh Tidiane radiyallahu taala anhum ajmain kon nag soxna Ndey Faatu Jóob tontu laa ngoog tabaarakallah nee na summa irtaxala topp Cheikh Tidiane radiyallahu anhu laxas ila naxiyati lmagribi jëm ci wàllu maghrib dafa amoon maghrib ak maghrib ndax jazair ci maghrib la waaye fii mu ci jublu al maghrib al aqsa fi ñuy wax Maroc tey li faas jëm ca dëkk bu tedd ba faas xarasaha allahu min kulli baas ñu bari buñ déggee Cheikh Tidiane dañuy fag ne faas la juddoo fa la yaroo fa la màgge waaye juddu na ba am dund na ba am ñaar fukki at benn demu fa bi ma amee ñaar fukki at ak benn nag voyage am bi mu njëkk a fa la jublu ndax Faas mooy dëkku xam-xam moy dëkku yàlla moy dëkk yiw bind taarix yi boroom xam-xam yi buñ dan bind tabaqat al ulama buñ yegge fas dañ koy jagleel volume boo xam ne tabaqaatu ulama yu Fass dañ daan wax ne Fass bari na xam-xam ba mur yi ba mur yi boo leen fëggee ñu wax la xam-xam martaxala Cheikh Tidiane jublu laxas ila nahiyati ila nahiyati almaghribi jëm ci wàllu maghrib li Faasin jëm ci Faas waa xawaasiha ak yamu jamu xaws كان مناسنة إحدى وسبعين ومائة والف أتم جنة أكتمير أكجروم نيافوك أكبن 1171 في غدا يونت صلى الله عليه وسلم بوبو شيخ تجاني نيام نيار فوكي ات اك بن نبو دمي فاس نك سمي عدقنا فيها جفاس شيئا لف من الحديث جي خمقم حديث بو دمي فاس جا مسجد القراوين نخمنا موي بريمير يونيورسيتي وغنا يكي تي يونيورسيتي ينخم يب تجيجين بنيو تدي فاطمة الفهرية moo ko tabax ci alal ju mu donne ci baayam kon nag ñu ngi wax wii mars ak jigéen cër biñ ko war a jox ma ne ah, loolu Europe la ñoom ñi jàppoon ni jigéen du nit te ba léegi ñu ngi kaas seeni xaq jotaguñ ci waaye lislaam moom innama nisaau shaqaiqu rijal la wax jigéen ak góor benn yaram la genn wàll liggéey góor genn wàll liggéey jigéen maanaa peer lañu wa min kulli shay'in xalaqna zawjay moo tax yàlla tudde leen azwaaj waaw azwaaj wa xalaqa minha zawjaha cër bu góor mérité ci yiwu yàlla jigéen mérité na ko ci yiwu yàlla ndax min zakarin aw unsa la wax man amila saalihan min zakarin aw unsa moo xam góor moo xam jigéen charta ba rek mooy wa huwa muumin na ngëm yàlla na ngëm yàlla fees ci xol yi kooku كوني مل غور لام جيغن هلا هلا نحيينه حياة طيبة نيبوك بوك ولا نجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون نيبوك بوك وندمي فاس رضي الله تعالى université bu mag bobu nga xamne tay ma nga dend ak fañu ko denc allah sirrahu jàng na fa xam-xamu hadith ak yeneen i xam-xam ci serigne ya fa nekkon ku mel ni cheikh as-Sajlamasi jàng na ci moom imam as-Sanusi jàng na ci al imaamu daqaq al quraanul karim bil qiraati sab' al mutawatira xam nga bi muy am juróom ñaari at la mokkal al quraan waaye bi riwaayati warshin an naafi' fii nag juróom ñaari njàngin al mutawatira yépp la fa jàng ndax cheikh mbiru jàngam luy yéeme la xam nga bi muy toll ci qul allahu ahad aaday ñooñ maghrib ak jazair xale bi bu tolloo fenn ci njàngam balaa sori sax dañ koy dafa am xafla yuñ koy def mel ni xaflaay xale bu fer yi ci wala yegg suratu rahman moom nag bi mu yeggee suratul ixlaas la bàyyam defal ko xafla invité ci sëriñam ndeyam suñu maam ndey Aïchatul mooy nettali radiallahu taala anha ndeyu Cheikh Tidiane lekk yi mu defer yàlla dafa ci def barke ba lu mu jël mu mel ni dara jógewut fa ci la dem nag ne baay bi xale bi ku ku rëy mbir lay doon waaw mag ñi dañ daan seetlu seen njaboot xale bi ku rëy mbir lay lay doon dëgg-dëgg xale bu rëy mbir la mooy ki gën a rëy mbir ci wëllu yàlla yi radiallahu taala jànge na fa ci cheikh al jamal al ism wa sir al xuruf tur wii ak mbootum xaraf yi ni nga xamee ne moom Cheikh Tidiane radiyallahu anhu maçonné na maçonné na information yi ci lettre bu mu bind benn ci taalibe bi Seydi Mohammed ibn Abdillahi al-Jilani te danañ yegg ci lettre yooyu la Cheikh Tidiane radiyallahu taala anhu nekk na fas ab dur jóge fa mu ne wa baqiya mu des ya juulu di wëndeelu bi qasdi ziyaarati jublu ziyaare ñooñ yàlla wal ak gëstu ala ahlil xayri ñooñ yiw wa salaaxi ak héwén wa diini ak ñooñ diine wal falaaxi ak mbégtem yàlla falaqiya mu dajeeg rajulan waay bi jabali zabib ci barab bu ñuy wax jabalu zabib wala ca doju zabib waay min ahlil kashf ci ñooñ kashf jabal الزبيب ليسان فلا دجيك بن واي تي نيون كاشو تودو نانكو موي محمد بن الحسن الوانجلي فاشار له مجنجكو بالرجوع دلو الى بلده دكم ديكو فتحهم ci goxam la koy amee wa axbarahu mu xamal ko bi amri ci mbiram maa la nga xam ne huwa moom bi sadadihi ñu ngi ko jublu dafa lam Muhammad bin al Xasan al Wanjali mi moo ne ko danga jot maqaama imam Chazali waye nak buñu xolé ci ca kanam danañu wax ne ki Cheikh Tidiane radiallahu taala nu jëk a dajal ci ñooñ yàlla ci tukke mu tedd mile moy qutubu zamanihi wa misbah ahli awanihi الشريف البركة الواصل العارف بالله الكامل كان مولانا الطيب الطيب ابن القطب سيدي محمد ابن القطب مولاي عبد الله الشريف الوزاني كوكو لا نجك داجال غور يالا غو ماغا ماغا ماغا ماغ لا ميغي فاتو بسو ديماش فكي ات فكي فانا جيروم نيت سي ربيع الثاني ويرو غام اتو 1181 1181 booba Cheikh ngi am 31 ans kooku daf lay yóbbu ca Mawlana Abdusalaam ibn la ci awliyaaw yàlla kooku daal moom lañ wax ne moom la njëkk a dajal ci ñooñ yàlla ca Wazan mu jox ko ndigal ci mu wirde tariqa al wazaniya cheikh al iraqi dana wax ne juróom juróom la fay dajeeg ci sëriñ dana fa jëlit juróom ci tariqa am na it ñu wax leneen aha ndax bu ñu xoolee ñu fa dajal danañ gis ne dinañ ëpp loolu xëy na ñam jàpp ci ñoom lay wax أو موم لا شيخ تيجان رضي الله تعالى عنه جاك دجال جاكو طريقة جاكو تمين ديغل تي مساهي طريقة بالشيخ لانك نخ موم نك سرين دولون يتم باريغول وون تي بوبام رضي الله تعالى عنه وارضاه وعنا به امين يعني فأشار له بالرجوع إلى بلده وايت نيون كشف من تدنين نموي سيدي محمد بن الحسن الوانجلي من دينغا جات مقام أشار لي أي مبير يو بري بري بري چي بيرم نيكو يت سفتح مانغاي أميتي غوخ بانغا دك يب أمنا غناوغا قدس الله سره واو نينا فلم يلبث حتى رجع لبلده سريعا وخرج مو جب مجننك بين كوخيل القاصدا دي أجي جبل لبلد الأبيض الأبيض أمون نيني سنيو مبوك يوفي نيوان جامونا يلي ديواكا شيخ تجاني فلين دكي fi naaxiyati saxraa ci wàllu saxraa ba lëti bi nga xam ne bihaa fa la nekk darixul waliyi bàmmeelu waliyu alkabiru bu mag ba darixul waliyi alkabiri والقطب الشهير قطب بوسيوبة سيدي عبد القادر بن محمد الملقب بسيد الشيخ فمكث موسى هناك هنالك فوفل خمسة أعوام ديرب جرومي أتل القراءات غير جنگ والعبادة أكجام يلا والتدريس أكجانجلي والتلاوة أكجانج وفي هذه المدة وفي هذه المدة منك نك دك بوبو لينغا خمني فلا قط بوبو مكبا نك دانا فدكات نك مم شيخ تجان بلا فتح حكومك دي ديك دخ نيت توكي الشيخ رضي الله عنه def buñ ne ñetti tukki moy jogam jëm jëm faas ak jogam ñaareel mi jëm mashriq muy aji ak jogum ñetteelam mi di tuxu si faas gannaaw bu yëf ya sottee ak ya xew ca saxraa ba radiyallahu taala anhu mu ne wa fi hadihi almuddati diir bii nag wasala جاتنا موم شيخ الى بلده تي معين ماضي تصديقا غير دغل لما اخبره ليغا خامني خبارنا نكو به تي الولي المتقدم ولي وو جيتو كشف شيخ دم نفا نخد ولي وننا كو ko delul sa dekk tax ba mu deme al abyat ga mu nekk da di fa def ya muy def ci wàllu jàngaleek wàllu xamale terewul mu dem ayn maadi ndax waliyu bu comme ne na ko dellu sa dëkk dem na fa wa rajaa mu dellusi si ila makaanihi ci barabam bi zawiyati cheikhil madkuri barab boobu soriwul ak ayn maadi mu daal di fa dellu ci zawiya góor googu sëriñ bu màgg boobu ñu tudd sànq te mooy seydi abdul qadir ibnu muhammad miñ daan woowee saydi cheikh cheikh dellu fa radiallahu taala anhu nekk fa juróomi at yooyule di fa jàngale di fa xamale di fa jaamu yàlla radiallahu taala anhu humma gannaaw ga irtaxala la laxas min haa jógee foofu ilaa tilmisaan jëmtil misan ah am nañ ñaar fukki minute kon ñu tek suñu loxo fofu le ngir dañuy bañ yëf yu gudd lool wala ñu firi waaw nañu firi li rek wa qama musakh biha bihaa ca tilmisaan li zahadati wal ibadati dëddu aduna ngir dëddu aduna wala ngir dëddu lu yàlla والعبادة أجنك كيف جام يلا وتدريس أخم لعلم الحديث خم خم حديث مكفي جانجلي والتفسير أك تفسير والإفادة أجرين جام يلا حتى أولهم بني ينكول سيدنا سني سانك شخت جان ما أولهم لينك ينكول ووقر تبي في صدري ددم ما وقر لك تبي وظهر له ما ظهر فيني الكل فيني maama ahlahu ànd ak li nga xam ne xadool na ko ko préparé na ko laahu yàlla ilayhi jëm ci moom bi sabiqi inaayatihi ci aji jiitu ji inaayam hoydi karamatihi ak bëbbam te dàngam nafada la sànni yadayhi ñaari loxoom mimma tukkee ci lépp loo xam ne la day nekk na fa moom wa taxallaqat aju himmatuhu hittéem al aliyatu ju kawe ja billaahi ci yàlla dong وليني حياشي أك إليه أك جمج مام تبارك وتعالى ومدال دي بور لق جوك أمون لنن لوسو حلام لول جمج سام بورم تبارك وتعالى والوقوف يأتخو ببابه بنتم ولا عقوف يتأكسخ عليه كي الله فجرد نفسه من العلائق مدال دي بوچي بكنم چي لپلو خملو لو أجو چه bakkanam la tajridan wa qataa ak ak bocc wa qataaha mu dagg ko anil alaayiqi walis way ajuy tafridan ngir wéetal boromam tabaraka wa taala wa labisa min jadidi tawbati jilbaaban mu daldi sol jàllaabey beesal tuub wa shammara an saaidil jiddi an saaidil jiddi an ak wala jaddi ñaari baax na athwaaban mu daldi fagaru dégg nga ngir lan farlu wala euh, ngir lan maanaam mu mu mu mu daal di wag ci xasabuy euh, dëggu ak xasabuy farlu aswaaban ay yéreem boo bëggee jóg jëm ci def dara ni ngay wagee sa yére noonu fataxallaahu alayhi lil masiri abwaaban yàlla ubbil ko ay bunt yoo xam ne dana ko yeggale fa mu jëm ca dox ba muy dox وازال مودن يلعنو تي موماني هان اجي تري جوت تي يالا وحجاب ناكي راي غوي دوخ تي ديغنت جامبك بوروم بي فا اكب موتخ مودال دي سخ على شانه اكبابا مجبلو تي اكبابا اك جبلو اكو سخ وان صب اليه انسبابا مسوتكو جنگ جم تي انسبابا وان حاش بكليته اليه مجل لبم جميتي الله واقبل بقلبه وقالبه عليه mu daldi jublu ci yàlla ci biiram ak biteem wa nabada kulla amrin duunahu min xalfin mu daldi sànni lépp loo xam ne mu nekk na lu dut yàlla mu sànni ko ca gannaawam mu ne lool na kañ la mu ne awaila sanati ixda wa thamanina wa miatin wa alf ci njëlbeeni junne ak téeméer ak juróom ñetti fukk ak benn mu mel ni mu ngi tourné foofu beneen page ci Cheikh Tidiane radiallahu anhu ak ci nekkam tilmisaan ak ci jóge ak jam fa war a jógee ak ñam fay dajeel wara a jëm wàllu euh, mashriq muy war a jëm makka dana ca tudd ñam dajeel ci euh, azawaawiya ci wàllu tariqaam alxalwatiya ak duggam Tunis ak nekk gu mu fay nekk ak yañ ko fay proposé ak jàllam Misra ak dajeeg gi mu fay dajeeg Seydi Mahmoud al Kurdi ak continuem dem Makka ak dajeeg gam fay dajeeg góor ga al ak demam Madina ak dajeeg gam fay dajeeg góor gu baax ga Seydi Abdul Karim Samman ak dellu sem ak na muy duggaatee Faas ak na muy génnaatee ba na muy ñëwaat ci saxaraa bi ba ni ko yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam di feeñoo di ko jox tariqa bi ak yam ko ca booleel ak del demam demaatam faasam ak ya ca aju ci wàllu qutbaaniyatu ak xatmiyatu katmiyatu yooyu dina feeñ ci duruus yi ñëw biidnillahi tabaraka wa taala hada sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi al azimi amin